à tout instant. Issegnan. Bonjour à tous. Sud Matin, seconde édition. Alsan Wad assure la mise en onde panique à Dieuppeul. Une dame décédée du coronavirus à l'hôpital de Fann. Cette dame habite la localité, mais sa famille n'a pas été mise en quarantaine. Son célèbre fast-food reste toujours ouvert. Les riverains ont peur. Ils lancent un appel aux autorités pour une prise en charge rapide et efficace de ce cas. Écoutons les propos de cette dame qui habite Dieuppeul. Elle de a nous avons essayé de contacter tous les responsables étatiques de notre quartier qui étaient déjà au courant. Et par là, je cite notre chef de quartier et notre maire, le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, qui était au courant. Et apparemment, ce jour-là, ils ont même envoyé des gens qui sont venus voir et même mettre de l'antiseptique dans la maison. Nous, nous sommes restés dans l'ignorance. Et chacun en parlait en douce. Donc le deuxième cas de décès dont on parle depuis hier au Sénégal, c'est exactement cette dame-là. Nous avons tapé à toutes les portes. Nous avons appelé le 800 0050. Nous avons appelé tout le monde et nous n'avons nous sommes toujours dans l'incertitude et personne ne veut nous aider. Que dans le quartier de Dieuppeul 2, cette dame qui est décédée exactement est dans notre quartier. Sa maison n'est pas mise en quarantaine, même sa, sa famille circule. Le fast-food n'est pas fermé, les gens continuent à acheter là-bas. Nous partageons avec ce, cette famille les boutiques et tous les étals qui sont dans le quartier. Là, nous sommes vraiment, vraiment dans un psychose total. Il faudrait que quelqu'un vienne à notre aide. Ce n'est pas une maladie honteuse, mais apparemment, tout le monde se tait. Et les autorités étatiques de ce pays, et je dirais le ministère de la Santé, personne ne veut lever le petit doigt pour nous aider. nous avons nos parents qui sont qui sont dans le quartier nos enfants nous-mêmes parce que là l'heure est grave Vous venez de suivre ce témoignage d'une dame qui habite euh, Dieuppeul. C'est la panique, la dame décédée du coronavirus à l'hôpital de Fann. Du deuxième, il s'agit du deuxième cas euh, de euh, décès. Cette dame habite la localité, sa famille n'est pas mise en quarantaine et son célèbre fast-food reste toujours ouvert. Et des rumeurs sur le débarquement de pirogues transportant des personnes venant de l'étranger au niveau de la Petite Côte. En tout état de cause, les autorités prennent renforce la surveillance de la côte. La marine nationale multiplie les patrouilles en haute mer. Babacar exactitude ou non de l'information selon laquelle des pirogues venant de l'étranger débarquent au niveau de la petite côte à Mbour avec le contexte du coronavirus, le préfet du département de Mbour apporte des précisions à en croire Mortaletine en tout état de cause. Nos forces de défense et de sécurité veillent au grain avec des patrouilles fréquentes de la marine nationale. Mortaletine, préfet du département de Mbour. Je ne sais pas si cette information et chaque soir, nos plages sont surveillées. Il nous est revenu que certaines pirogues euh, remplies de passagers tenteraient d'accoster euh, sur nos, nos, plages. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas eu d'informations exactes et précises détaillées sur l'existence euh, de ces pirogues. Mais comme je l'ai dit, nous veillerons. J'ai pu échanger avec le directeur de cabinet du ministre de la Pêche. Il m'a indiqué que la marine a lâché ses patrouilleurs pour surveiller nos côtes. À en de Mbour, si information est avérée ils seront encadrés et reçus au débarquement avec les consignes de prévention du Covid-19. Un dispositif de à Mbour. Mortala Tine, préfet du département de Mbour. Si cette information est et que ces passagers sont nos compatriotes, on doit les encadrer, accepter qu'ils débarquent avec de précautions. Et la consigne, c'est qu'aujourd'hui, tout voyageur qui nous de l'extérieur, quelle que soit la manière dont il est entré la durée d'incubation qui est de l'ordre de 15 jours. Dire que dans le département, le dispositif de confinement est déjà opérationnel, je pense que cela ne devrait pas trop nous poser problème si de tels passagers devaient débarquer sur nos plages. Ce que je peux dire à ce propos, c'est que nous avons été saisis officiellement par le ministre en charge du développement communautaire dans le sens de demander aux autorités administratives de mettre en place les comités. Babacar Sow depuis Transport clandestin interurbain jusqu'en zone de frontière par les mototaxis Jakarta dans la région de Sédhiou. Le risque potentiel de contamination est réel selon les professionnels de la santé très inquiets. Euh, les forces de défense et de sécurité qui opèrent dans toutes les collectivités territoriales préviennent les contrevenants en cours de lourdes sanctions. Correspondance Moussa Dramé. Les professionnels de la santé du district sanitaire de Sédhiou urbains. Aux parleurs dressés sur le toit pick-up, voici le message qui leur est délivré. Les Jakartamans sont en train de sortir de la commune de Sédou pour aller donc à Kolda, Ziguinchor, le responsable du bureau éducation et information pour la santé du district sanitaire de Sédou, établit le constat et rappelle que le potentiel de risque est permanent. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous n'avons pas encore de cas, mais il faut qu'on continue la sensibilisation. Or, on a constaté que sortent de Sédhiou pour transporter des passagers jusqu'à Kolda. Ils vont jusqu'à Ziguinchor et d'autres en vont même jusqu'à la frontière. Il faut qu'on les avertisse parce que ils peuvent transporter des gens qui peuvent avoir le coronavirus sans qu'ils le sachent et ils vont le ramener chez nous à Sédhiou. Donc on les interpelle pour leur demander de rester dans la commune. Tout aussi conscient du risque, le président du regroupement des conducteurs de mototaxi qui de visu a fait le même constat, exhorte ses camarades conducteurs au respect des consignes de sécurité sanitaire, n'est-ce pas Sandramé Oui, effectivement. Moi-même, je me suis déplacé, je suis allé rencontrer quelques jeunes qui étaient venus de, du Sénoba afin de les pouvoir expliquer que maintenant les transports interurbains sont arrêtés jusqu'à nouvel ordre. Le slogan de tout Sénégalais est de à respecter également ces, ces, ces normes et ces règles. Sur le terrain, les forces de défense et de sécurité, y compris les agents de sécurité de proximité ASP et autres au respect de l'ordre établi et n'hésite point à faire valoir la loi dans toute sa rigueur. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, direction Louga pour parler des dures conditions de vie des familles des Modou Modou impactées par la crise du Covid-19 dans le monde. Leurs fils et époux émigrés confinés dans leur terre d'accueil, euh, donc à cause justement de cette euh, pandémie. Euh, ces moudou-moudou n'envoient plus de l'argent pour subvenir aux besoins des familles au bercail. C'est un reportage de Lamine Guessama. Moralement, elles sont fatiguées. Elles pensent de jour comme de nuit à leurs fils, à leurs maris, à leurs proches éparpillés un peu partout dans le monde. Financièrement, elles sont aussi très fatiguées. Elles peinent à trouver le diable pour le tirer par la queue. Elles, sont les nombreuses familles logotoises de Fatou Fatou et Mamadou. Ces derniers, confinés dans leurs euh, différentes terres d'accueil en Europe, en Asie, en Amérique, ne travaillaient presque plus. Donc, euh, confrontés à d'énormes difficultés pour envoyer de l'argent pour les besoins les plus élémentaires de leur famille laissée au bercail. Le Covid-19 brise le silence des épouses et mères de famille, cataloguées pourtant discrètes et très avares en mots pour parler de leur intimité. a son nom d'emprunt, épouse de Modou Modou. Mon mari se trouve là-bas en Europe, ils ne peuvent pas travailler, ils sont obligés de rester chez eux et ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Vraiment, c'est quelque chose qui fait mal. Nous vivons ça, ça fait deux mois, il y les factures. qui sont la possibilité d'envoyer de l'argent à leur famille. C'est trop dur. Aïcha, appelons-la ainsi, épouse elle aussi de Modou Modou, vit la crise suscitée par la pandémie du coronavirus dans le monde. J'ai mon mari qui est à Paris. J'ai aussi ma petite sœur qui est à Paris. Mon petit frère, il est en Italie. J'ai aussi des amis, la famille qui sont partout à l'étranger. C'est difficile, Vraiment, c'est difficile. La fois passée, quand j'ai parlé avec mon pas, ils font rien. Ils peuvent pas envoyer de l'argent pour les dépenses. L'association des émigrés baptisée Salfael Ndiambour, par la voix de son président Ali Gueye, demande à l'État de ne point oublier les familles des Modou Modou et Fatou Fatou dans l'aide destinée aux ménages impacté économiquement par le Covid-19. Lamine Gueye Saman Louga, Sud FM. Et puis, lancement ce dimanche de l'opération de l'inspection des marchés de la commune de Saint-Louis. Elle est exécutée par les éléments du service régional d'hygiène avec l'appui et l'accompagnement du maire Mansour Faye qui invite les acteurs des différents marchés à plus de compréhension. À Saint-Louis, le maire Mansour Faye a reçu un appui en produits désinfectants de la part du président de Saint-Louis Basket Club, Baba Tandian, ainsi contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus dans la région. Dans cette même lancée, le maire a également reçu un autre lot de produits offerts par les notables de Guet-Ndar. Les précisions de Yves Tendeng. Après les présidents de conseil de quartier de la commune de Saint-Louis et les bonnes volontés de la vieille ville, c'est au cette fois-ci du président de Saint-Louis Basket Club de venir en appui aux efforts consentis par le maire Mansour Faye dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Baba Tandian. Avec mes amis, avec ma société, j'ai décidé d'acheter ces gels et de les offrir au nom de Saint-Louis Basket Club. et d'imprimer des affiches. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de médicaments contre le coronavirus. Il n'y a pas de médicaments. Pour le moment, la seule chose qui peut nous sauver, c'est la prévention. La prévention, c'est quoi utiliser des gels. Un geste qui, d'après lui, contribuera à barrer la route de manière définitive à cette pandémie qui a déjà fait plusieurs victimes dans le monde. Quand on voit le président de la République prendre des mesures aussi Vous savez, c'est pas de gaieté de cœur. Il y a un problème, il y a une situation qui aujourd'hui dépasse tout le monde, dépasse les pays européens qui ont un plateau médical supérieur à celui de l'Afrique. Et aujourd'hui, ces pays sont dépassés et ont, ont pris pour que le Sénégal soit épargné, que l'Afrique soit épargnée. Magnifiant ainsi l'initiative, le maire Mansour Faye d'inviter l'ensemble des fils de Saint-Louis de suivre cet exemple du président Baba citoyens d'ici et d'ailleurs à venir se mobiliser autour de la population, accompagner la population, permettre à la population de faire face donc, à la propagation de ce virus. Et certainement, ce sera un appel entendu par tout le monde. Également, le maire Mansour a reçu lors de cette rencontre un important lot de produits hygiéniques de la part des notables de Guetnar, mais aussi une enveloppe financière de 1 500 000 francs mobilisée par ses conseillères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 Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le chef de l'État, le président Macky Sall, a annoncé plusieurs mesures, 302 milliards pour le paiement des dettes dues aux fournisseurs de l'État. 100 milliards dédiés à l'appui direct de 100 milliards pour financer les entreprises en difficulté. Crédits et TVA seront remboursés, remises et suspensions d'impôts, plusieurs mesures annoncées par le chef de l'État pour euh, soutenir les secteurs économiques lourdement affectés. C'est le cas du secteur du euh, tourisme. On en parle ce euh, matin avec euh, Boubacar Sabali. Il est le président du syndicat du secteur de l'hôtellerie et du tourisme de la région touristique Thiès-Diourbel. Il répond à Babacar Samb. Boubacar Sabali, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du syndicat du secteur de l'hôtellerie et du tourisme de la région touristique de nation, le président Macky Sall a annoncé un certain nombre de mesures euh, les secteurs économiques victimes de de Covid-19, notamment la en place d'un mécanisme de financement de 200 milliards de francs CFA accessible aux entreprises affectées. Des remises et suspensions d'impôts Comment jugez-vous ces, ces mesures Je me dois d'abord de saluer euh, cet accompagnement du chef de l'État, qui n'est pas nouveau. Dès euh, les premières mesures de, de fermeture des frontières, euh, le, le, chef de l'État avait déjà euh, pris conscience que cette mesure allait affecter le secteur du tourisme et avait déjà décliné Euh, des mesures d'accompagnement euh, pour l'ensemble de l'économie sénégalaise euh, et en particulier le secteur du tourisme. Donc nous ne pouvons que réitérer notre entière satisfaction et notre solidarité au chef de l'État et adresser également nos prières à nos compatriotes euh, ou ceux qui euh, vivent au Sénégal et par cette en tout cas cette mesure. Mmh. En fait, vous, vous êtes du tourisme et de l'hôtellerie, un Vu la situation actuelle, est-ce que vous pouvez répondre aux critères ou obligations imposées par l'État, notamment le maintien des travailleurs en activité pour la durée de la crise ou le paiement de plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique pendant cette période? Mais je pense que y a eu une discussion euh, préalable entre le secteur privé et les autorités euh, qui, nous ont rassurés quant aux possibilités d'un soutien. On ne savait pas à quelle hauteur, mais maintenant le sait, c'est depuis hier. Maintenant, nous devons mettre tout en œuvre pour que cette mesure puisse bénéficier euh, au Parce que, euh, autant vous dire que toutes les entreprises n'étaient pas en mesure euh, de supporter les 70%. Euh, par contre, à partir du moment où euh, l'État du Sénégal euh, accepte de faire l'effort parce qu'on n'est pas les seuls, eh bien, nous aussi, je pense que nous, nous avons réfléchi sur la question de sa mise en œuvre et de l'application sur l'ensemble du, du, territoire. Maintenant, on évite de, de, de prendre une position personnelle. C'est le secteur privé qui euh, réfléchira et qui informera aux membres euh, pour euh, que chaque, ch chacun d'entre nous

et euh, son application, la mise en œuvre, décidée dans le cadre de la corporation, c'est-à-dire du patronat. Et concernant le manque à gagner, est-ce que depuis la fermeture des frontières aériennes et la fermeture euh, de vos hôtels, est-ce que vous avez fait une évaluation euh, globale. Euh, disons qu'au nous pensons que pour une durée de six mois, on va cumuler plus de milliards de pertes.

Le gouvernement qui a pris des pour aider les entreprises touchées euh, par le Covid-19, même s'il y des conditionnalités, euh, donc euh, l'économiste Aboukan apprécie les mesures prises par le chef de l'État. Aboukan est le chef du département d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. de Babacar Sam. Vous êtes euh, chef du département d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans une perspective de soutien au secteur privé lourdement touché par la pandémie de Covid-19, le chef de l'État Macky Sall a annoncé une enveloppe de 302 milliards euh, consacrée aux paiements dus aux fournisseurs de l'État, 100 milliards spécifiquement dédiés à l'appui direct des secteurs de l'économie, notamment les transports, l'hôtellerie, mais également l'agriculture. L'État mettra également en place un mécanisme de financement à hauteur de 200 milliards accessible aux entreprises affectées par cette pandémie. Les crédits crédits de TVA seront également remboursés, des remises et suspensions d'impôts seront aussi accordées aux entreprises. Comment mhm. jugez-vous ces mesures? Est-ce qu'elles peuvent constituer de parachutes pour des pour les entreprises fortement affectées par la pandémie? Oui, euh, je pense que ce sont des des mesures euh, très importantes et euh, qui peuvent quand même euh, aider les entreprises sénégalaises euh, à se remettre un peu de cette crise-là. Euh, parce que euh, euh, nous n'oublions pas que nous comptons beaucoup sur l'apport du secteur privé dans cette deuxième phase du plan Sénégal émergent. Malheureusement, on était déjà sur une bonne trajectoire de croissance, mais cette pandémie est venue tout remettre en cause. Et ce qui peut compliquer un peu la donne pour les entreprises sénégalaises, c'est que nous sommes ici en face d'un choc euh, qui n'épargne aucune économie au monde. Donc ce n'est pas un choc qui est propre à l'économie sénégalaise, et c'est ce qui va un peu limiter la portée euh, de ces mesures-là. Ce sont des mesures très importantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais puisque euh, c'est un choc qui touche l'économie mondiale et nous dépendons beaucoup des grandes économies qui sont très touchées par cette crise, euh, cela peut quand même euh, atténuer un peu les, les effets escomptés euh, de ces mesures. Vous savez, les 302 milliards euh, qui, qui vont être euh, consacrés au paiement des, des fournisseurs de l'État, déjà, c'est une bonne injection de, de liquidité, même s'il y a des conditionnalités derrière, parce que le président de la République dit il faut que les entreprises s'engagent à, à, maintenir les salaires. Mmh. Donc, il faudra que ces 302 milliards-là euh, soient euh, donnés aux entreprises le plus rapidement possible, euh, parce que autrement, euh, il y aura des retards de salaire et ça va encore euh, impacter sur la vie des salariés du, du secteur privé. Il y a aussi mhm. une mesure qui concerne un peu la suspension d'impôts accordés aux entreprises qui s'engagent à maintenir leurs travailleurs en activité à payer plus de 70 pour cent des salaires. Mm -hmm. aussi, euh, ça suppose que les entreprises ont des liquidités euh, pour pouvoir respecter cette condition-là. Et mhm. c'est ce qui que donc euh, il faudra qu'on aille dans la mise en œuvre de ces mesures-là, que les entreprises euh, sont, sont déjà euh, touchées de plein fouet par la baisse des activités, mmh. aussi bien au Sénégal que, que, que dans le monde entier. Mmh. Euh, il y a les différés de paiement d'impôts, comme vous l'avez rappelé. Donc, ce sont des, des mesures euh, qui prennent en compte vraiment tous les aspects de la vie des entreprises et qui pourraient vraiment être très intéressantes pour nos entreprises, pour leur permettre de reprendre le, le, leurs activités, en espérant que euh, cette crise ne va pas durer plus de deux mois devant nous. Parce que si la crise se prolonge, euh, tout cela euh, sera encore remis en cause parce qu'on se posera la question de savoir si l'État peut continuer à soutenir le secteur privé comme, comme il se doit. Et d'ailleurs, le président a bien fait de parler de stabilité macroéconomique et financière parce que derrière ces mesures-là, il faut savoir qu'en dehors du soutien au secteur privé, il y a aussi le système bancaire qui est concerné parce que si les entreprises euh, ont pris des crédits au niveau des banques, euh, si elles tombent en faillite, vous voyez, c'est aussi le système bancaire qui sera affecté et ça peut créer donc des effets boule de neige dans tout le système financier. Maintenant, euh, la vraie question, c'est est-ce que ces mesures-là permettront juste à notre secteur privé, à notre économie, de survivre à la crise ou elles permettront de relancer l'économie. Et c'est là où se trouve la vraie question. Ces mesures pourront permettre de relancer l'économie, encore une fois, si la crise là ne perdure pas. Mhm. Mais si la crise perdure pour quatre cinq 6 mois devant nous, euh, ces mesures-là euh, serviront peut-être à amortir pour le choc, mais elles seront peut-être insuffisantes pour relancer l'économie après la crise. Et en ce moment-là, le gouvernement sera amené à prendre encore d'autres mesures et eh, d'autres types de décisions pour soutenir l'économie. Et la, la vraie question sera de savoir où est-ce qu'on va trouver ces moyens-là. Voilà. Professeur Aboukane, je vous remercie. Je rappelle, que vous êtes le chef du département d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Place à notre rubrique Sud Nutrition, c'est avec Ndeye Khady Diop. Le gel main Valdin, efficace sur des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition.

prépare, la personne qui a peut-être une main contaminée, une personne qui tousse, etc., il peut aussi être contaminé lors de la distribution ou du service de l'aliment. Et quels sont vos conseils pour éviter de manger des aliments contaminés Alors j'en ai 10. Le premier, c'est que d'abord il faut réchauffer le pain, si le four est disponible bien sûr, à 60 degrés pendant 4 minutes avant de le manger pour tuer ou en tout cas éliminer le coronavirus. Deuxièmement, il faut se laver les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes avant de toucher tout aliment pour la préparation. Troisième conseil, il faut laver tous les aliments avant de les préparer, même s'ils vous paraissent propres, même s'ils sortent du réfrigérateur, il faut les relaver parce qu'il peut y avoir eu une contamination entre-temps. qui courent. Je pense notamment

Donc euh, ne mangez pas la peau des pommes, ne mangez pas la peau des pois, ne mangez pas la peau des prunes, etc. D'accord. Alors le sixième, c'est qu'il faut séparer les aliments crus des aliments cuits. Et ça, c'est pour éviter la contamination croisée. C'est-à-dire que s'il y avait un aliment cru qui était contaminé et que l'aliment cuit à la base ne contient pas de coronavirus puisqu'il a été cuit, eh il ne faut pas que ces deux aliments-là à l'aliment que c'est le moment ou jamais d'éviter les aliments de la rue. On ne sait pas si oui ou non les précautions nécessaires ont été prises pour la préparation. Et puis le risque de contamination par le virus peut être très élevé après la préparation, puisqu'il n'y a en général aucun dispositif de conservation correct de ces aliments-là. donc à éviter absolument. Le huitième Le conseil, c'est que moment de manger, il faut éviter de partager les ustensiles et la vaisselle, par exemple, le partage des cuillères, le partage des verres. Pourquoi Parce que, évidemment, le coronavirus peut se transmettre par la salive et qu'il n'est pas rare du tout de voir une maman partager une cuillère avec son enfant, de voir une grand-mère ou un grand-père partager une cuillère avec son enfant. Et dans ce deuxième vont passer le virus à une personne âgée qui est beaucoup plus sensible et qui va être très malade. Donc, il ne faut pas partager ces choses-là. Avant-dernier conseil? Alors, le neuvième conseil, c'est que si possible, il faut absolument éviter de manger dans un bol commun, surtout avec des inconnus, parce que le problème du bol commun est que on mange très souvent avec une cuillère, la cuillère entre dans la bouche se nappe de la salive des personnes qui mangent. C'est dans cette salive-là qu'on retrouve le coronavirus. Et cette cuillère, elle retourne dans le bol. Et elle retourne surtout pour prendre les légumes, pour prendre la viande qui est commune à tout le monde dans le contexte du bol. Et à ce moment-là, cette salive-là qui peut être contaminée est redistribuée à tout le monde. Donc au sein des familles, si déjà c'est une famille nucléaire, on sait que personne personnes, des inconnus, à manger avec nous autour du bol. Et le mieux, c'est de manger à l'assiette. Mais bien évidemment, nous sommes au Sénégal et ce n'est pas possible pour la majorité des Sénégalais. Le dixième Alors, conseil, c'est que cas où on doit manger des restes de nourriture, il faut les chauffer au moins degrés au cas où ils auraient été contaminés pendant la conservation. si on avait gardé un peu de son déjeuner pour le manger au dîner ou qu'on avait gardé euh, euh, en diagonale, eh il faut

Sud FM chez vous, à tout instant. Stop coronavirus. Stop fas yéene bay waaram ci lii nga xam ne mooy taxawaay yi ngir coronavirus bañ a law ci biir réew mi bés bu yàlla sàkk bu ñeenti waxtu jotee ci ngoon daañu leen defal tolluwaay yi nga xam ne moo am ci biir réew mi taxawaay yi ci war a am. taxawaay yi ñu ci indi yi ak lépp luy méngook moom ngir lii di coronavirus bañ law ci biir réew mi kon nag bu 16h jotee bu ko kenn wuute ci Sud FM 98.5 yéen yi tamit di ngeen mën a bokk ci stop coronavirus su ngeen wootee ci 88 628 98 98. Allô docteur. Allô docteur. Allô sama doom yaram bi day tàng biir bi day daw. dama sibbiwu. sama rakk laa indi woon biir bi day daw te yaram bi dafa tàng. <coughs> dara dootu leen ëmp ci seen wàll wér-gu-yaram Ndeye Khady Diop dina fi dalal ñu seen xam-xam màcc lool ci wàllu wér-gu-yaram plus aucun secret plus aucun mystère sur les questions médicales un médecin sera à votre disposition allo docteur talaata bu jot lay am ci Sud FM 98.5 allo docteur ngeen ànd ci ak Val d'Afrique ordre des médecins du Sénégal ak Sud FM seen rajo ci seen émission allo docteur talaata ji yem ak juróom-ñaari fan ci weeru avril atum 2020

docteur. Allô, juróom-ñetti waxtu jot na fii ci Sud FM seen rajo ànd leen ak ñun teewlu seeni xibaar ak gësëm. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. il est 8 bokk yi am ngeen jaajëf juróom-ñetti waxtu mooy door a jot nu dooraat xabaar yi rek doore ko ci tiitaange mu am fële woon ca jëppal gannaaw ba nga xamee ne am na soxna soo xam ne sii dafa faatu waaye nag dafa yore woon nga faatu ci hôpitalu Fann dafa yore woon nag it eh, benn fast foofu foofule waaye nag bërëb bu ñuy xéwloo daal maanaam foofu eh, foofule ca jëppal waaye nag boobu ba léegi tëjuñu béréb boobule te nee ñu coronavirus bi eh, moo tax mu daal di faatu am na nag itam ñoo xam ne daal andi nañ ci tiitaange lool ca jëppal Eh, kilifa yi nag eh, fi nu toll nii daal ñoom la ñu war a xool daal béréb boobu nu ñu ci eh, taxawoo kenn ci soxna yi koo xam ne ki ma nga dëkk ci jëppal jokkoo ci ak Ndeye Mariam Ndiaye ñu déglu. depuis un temps. ñuy wax suñu koñ de am na ko ko fi am. ñu ngi koy wax ci rajo yi ñu ngi koy wax ci journaux yi ñu ngi koy wax te boobu ba léegi mënuñu ci am kenn ku ñu ci dimbali suñu maire xam na ko suñu chef de quartier xam na ko te kenn bëggu ci def dara ñun nag wax lañ ci mën parce que à chaque fois bu ñu wootee le numéro vert 800 00 50 50 on a appelé plusieurs fois soit kenn du nu jël wala ki ñuy waxal boog moom day mel ni xamu ci dara il faudrait que gouvernement bi nañ wax nit ñi li ci am parce que ñun xam nañ li ci am ndax ñun suñu commune bi ñaari décès lañ fi am bu bokkeek bu bu Pape Diouf bi ñuy wax ne mooy premier cas bi donc ñu ngi ci trois décès ci yu ñu xam boog bokkul ak li ñu xamagul léegi nag ñun sonn nañ. dañ fi am njaboot am fi suñuy papa suñu ay yaay te on veut les mettre à l'abri léegi ndax fi mu nekk nii ñun nalawatuñu bu ñu buggee dugg ci boutique bi dañuy tiit ak fu ñu mënti dem dañuy tiit ñu ngi saafoonteeg nit yi ñu ngi teg nit ñi ñu ngi wax ak nit ñi ñu doon bokkandoo marché bi avant ñu koy tëj te lii xamuloo fu muy jëm ñu ngi jaay ci seen fast bi tëjuñu ko ba tey te nit ñi dañuy dem di continuer di jënd ci fast bi. du rus du honte mais quand tamit bëgg nañ protéger suñu bopp mais am na lenn loo xam ne bu amee il faut que nit ki wax ci ndax Sénégal nit ñi mën a jël seen précaution bu gouvernement bi waxee population bi ñoo leen bëgg dimbali ñun tamit en retour il faudrait que gouvernement dimbali ñu na ministère de la santé yónnee ay nitam ñu mettre en quarantaine kër gi xool ñi fi feebar ak ñi fi feebarul ñu faj leen. loolu ca fële nga xam ne moo di jëppal fële jëf jooju yooyu lay xewee ca mbuur moom ay rumeur ay lu ñuy rumandaat naan daal am na ñoo xam ni dañuy dugg ci gaalu loo ca itam rek di indi ay nit itam yoo xam ne xëy na dañoo bowoon ci wàllu bitim réew te loolu tàbbal gi ñuy tàbbalu jaar ci yoonu géej gi mën naa indi ay jafe-jafe ci wàllu tawat ji nga xam ne moo di covid 19 bi am nag kilifa yu tàmbali xat jëli matuwaay Babacar Sow xibaar bi rot ñu am ci ay jéexe jaaxa ci am na ay gaal waaw wala déet yu jóge bitim réew di teer fi nga xamee ni moo di ci plage yi nekk ci Petite Côte ci Mbour ak coronavirus bi ñu nemmeeku ci réew mi préfet bu département bu mbuur di ci indi ay leeral suñu sukkandikoo ci Mortalla Tine nee na daal lu ci mënti amit waaye kaaraange yi nekk ci réewum senegal ñi ngi leen di bàyyi xel ak ay patrouille yoo xam ni marine nationale dina ko faral di def ci géej gi Mortalla Tine préfet bu département bu Mbour. waaye day li ci mënti am it suñu waay kaaraange yi taxaw nañu tembe ngir surveiller li nga xamee ni moo di suñu plage yi. nee nañu nag am na ci ñoo xam ne nii dañu nekk ci ay gaal di ñëw teer si ci tefes gi. d'information exacte dara leeragu ci waaye lu ci mën tamit amit euh, ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax taxaw nañu temb démb rek waxtaan nañu ak directeur cabinet ministre de la pêche nee na daal am na ay patrouille yu ñu def ci biir géej gi. suñu sukkandiku ci préfet bu département bu mbuur li mu yee yàbbi nee daal su fekkee itam loolee dëgg la te ñuy ay doomi Sénégal daañu leen teeru encadré leen waaye itam bàyyiwaale xel tegtal yi réewum Sénégal joxe ci wàllum saytu. nañu coronavirus bi Mortalla Tine yokk ci ni Mortalla Tine préfet bu département bu Mbour. li ma ci bëgg yokk su fekkee itam xibaar bi wér na bien su fekkee itam ay doomu Sénégal lañu daañu leen teeru. waaye nag matuwaay yëpp daañu ko ci jël fu mu mënti jóge it voyageur boobee dañ leen ko yóbbu confiné ko yóbbu ko quarantaine fukki fan ak juróom ngir seet ndax am na feebar bi waa wala déet ni ñu ko santaane. Babacar Sow dañ ci kenn fii ci diwaanu Mbour pour Sud FM Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju yi tamit ci lépp loo xam ne aju na ci ñi nga xam ne tam dañuy yóbbu ay nit dëkk ak dëkk te di ko nëbb di jaar ci ay moto Jakarta ci gox yi nga xam ne moo féeteeg boor yi Sédhiou loolu tam nekk na daal ay mbir yoo xam ne mën naa gën a yokk doomu jàngoro ji donte sax kilifa yi ñu ngi bàyyi xel loolu le Moussa Dramé waa kër docteur yi féetewu ci district sanitaire bu Sédhiou am na yeete bu yaatu boo xam ne ñu ngi koy amal jamono ji jëmale kër dawalkat moto taxi Jakarta ngir ñu bañ yépp ay client ci diggante dëkk ak dëkk ci yeete boobu la it am na haut-parleur bu ñu teg seen auto pick-up di am kaddu yuñ ciy fësal. comme Touba. Sadio Deme nekk responsable bureau éducation information pour la santé ci district sanitaire bu Sédhiou am na nemmeeku boobee nga xam ne si def na ko te nee it lu jëm euh, commune bi ñu ngi génn di dem di yóbbu ay nit ba Kolda di jël ñeneen di indi di dem ba frontière di jël ñeneen di indi di dem ba ay côté Ziguinchor même su fekkee ñun jotaguñu am cas de corona waaye ñooñ luñ nekk di def mën nañ jël koo xam ne mu ngi ak doomu jàngoro bi te duñ ko yegg daal di ko dugal ci suñu biir euh, ville nañu yem ci biir commune bi. naka noonu it Assane Dramé nag njiitum dawalkatu moto taxi Jakarta nee na it ab dëgg la ndax it moom sax ci jëm bopp am na nemmeeku boo xam ne def na ko ci wàllu woowee te moom sàkk bu muy def ci fànn boobu la ñu gën ci bàyyi xel Assane waxal. waaw am na fi effectivement tey tey rek yem naa ci ay borom moto yoo xamante ni ñëw naa fekk ASP jàpp leen laaj leen fu ñu jógee ñu ne côté Sénoba et frontière bi et tout wax liggéey ndagam euh, ministre bi moo ko tere rek nañu jàppalante nañu respecté mesures yi nga xamante ni moom la kilifa yi réew mi jël. ci jamono jooje ñi nga xam ne si ñoo di tàkk der yi bokk ci ASP ak ñeneen ñoo xam ne it seen i jëmm ñeneen ñoo xam ne it seen coobare bopp la ñuy taxaw ñoom ñëpp ñu ngi fexe bu lépp loo xam ne si moo di sart buñ tëral kenn ku nekk mën ci bàyyi xel sàmmanteeg yoon li ko mooy ñu teg laay daan gis doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé ca Louga ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen njaboot foofee nekk ay moodu moodu ca bitim réew njaboot googule ñu ngi ci ay tolof tolof ak i benk ñenk dund ndax li doon dikk ci wàllu koppar dikkatul ñu nekk ci ay jaaxle loolu itam Lamine Gueye Samane sonn ñu lool ci ay xalaat guddi ak euh, bëccëg seen xel du jóg di dem seen ay doom wala seen ay jëkkër wala boog seen ay ñi leen jógee nekk ci bërëb yu bare ci biir àddina bi lu jëm ci wàllu koppar itam sonn ñu lool ndax tey jii am nañu ay jafe-jafe ngir song lépp li nga xam ne rek war nañ ko daan ci biir kër yi ñooñu du ñenn ñu dul famille yi nekk ci biir Louga seen ay doom yu jigéen wala yu góor nekk ci bitim réew li ko waral mooy ñooñu si dëkk yooyu nga xam ne moom lu ñu nekk si biir Europe si Amérique si asi ak feneen daanaka liggéeyatuñu ndax mëntuñu génn seen kër li mu jur nag mooy mëntuñu yónnee benn koppar ngir saafara benn jafe-jafe bu am si biir kër yi nga xam ne moom nañu bàyyi si gannaaw donte sax sutura ak kersa tax na ñoom barewul lu ñuy wax Covid 19 bi génne leen seen celaaral yooyu Aïda ñu jox ko tur boobu moom soxna la si benn moodu moodu yëkkat na si ay kàddu. njaboot ça fait deux mois situation bi mi ngi duré factures yi ñu ngi en attente et tout ça vraiment métti torop situation bi ñu nekk nii du ñoom ñoo ko créer seen bopp dafa nekk loo xamante ñoom mënuñu ci dal ils sont obligés de toog ñu toog seen kër sans pour autant ñu liggéey nii quoi que ce soit ñun jigéen ñi nekk si kër yi on est obligé ñun ñooy débrouiller pour mën a survenir aux besoins de la famille. Aïcha moom itam ñu wooyee ko noonu doon jabaru Modou Modou mi ngi dund jafe-jafe yi métti si jamono yi nga xam ni coronavirus mi ngi lëmbee àddina wërngal métti na trop pour ñu gérer ko parce que suñu jëkkër yi nga xam ne ñoom ñi ngi bitim réew bàyyi seen i njaboot fii bàyyi seen i yaay fii bàyyi seen lépp émigré ji pour mën a satisfaire suñuy besoin instant bi métti na ci ñoom boo leen woowee sax dangay gis ne dañu stressé dañuy jaaxle ñoom aussi mënatuñu yónnee fenn ni dépense ni dara te boo xoolee tey dépense yaa ngi taxaw besoin famille yi ñu ngi taxaw facture ndox yi aussi tamit mu ngi ñëw ñu war leen a fay aussi benn si kuréel yi yi nga xam ñoo fekk mbaax Louga ñu koy woowe salfep njàmbur si turu seen président Ali di woo nguur gi mu bañ a fàtte benn yoon famille yu moodu moodu ak faatu-faatu yi nga xam ni jamono yi ñu ngi dund jafe-jafe yu tar ki leen doon jotale xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Saman Sud FM Lamine Gueye Saman ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ca Ndar la ñuy dal di dem maire ba fa nekk di Mansour Faye jot na ay ndimbal yoo xam ni ay produits la yooyu dafa jëm rek lépp loo xam ne aju na ci wàllu seetal foofee kii di Baba Tandian moom tamit daal di indi rek ah, loxoom dugal ko ci xeex bi ñuy xeex lépp loo xam ne aju na ci wàllu coronavirus bi Yves Tendeng ginnaaw njiitu conseil de quartier yu commune bu Ndar ak it ñi nga xam ne ni ñooy bonne volonté yu diwaan gi daanaka kii di président bu Saint-Louis basket club moo jóg rek indi ndimbalam teg ko ci loxo ki nga xam ni mooy maire bu commune bu Ndar di Mansour Faye ci lu jëm ci mbirum xeex bi ñuy xeex wopp fii di coronavirus ci diwaan gi. xeex bi ñuy xeex ni du xeexu mais xeexu ñëpp la man yéen tout le bu ñu ko defee xëy na peut-être que yàlla mën nañu dimbali affaire bi mën a bañ a law parce que bu lawee rek musiba lay di parce que doo xam fan lay dem. muy ndimbal bi mu jàpp ne daal dina tax ba tey jilee ñu mën a xeex pandémie bi nga xam ne ni bër na li mu faat ci ay bakkan ci àdduna bi. parce que corona bi boo gisee. jéey bu muy def ci àdduna bi. dans les pays européens nga xam ne ñoom seen plateau médical moo gën a supérieur mille fois suñu plateau médical tey aujourd'hui ils sont dépassés boo demee ba une ville comme New York un pays comme les États-Unis la première puissance mondiale bu demee ba jaaxle bay wax ne maintenant ne dimbal leen ma essayer de trouver une solution mais ngeen war a xam ne rek que lii bu ñëwee fii eh suñ ci fagaru tout de suite baare affaire bi ci kanam tout suite mais musiba lay indi. kii di maire bu Ndar di Mansour Faye ginnaaw bi mu rafetluwee bi la ndimbal moom muy ñaax rek mu doomu Ndar yi ngeen ñu dugal seen yoxo ci xeex bi te roy ci kii di Baba Tandian. dama ciy profité maanaam pour wax le mouvement sportif nañu topp tànk lu Saint-Louis basket club def jiital ci seen président Baba Tandian. parce que c'est la mobilisation citoyenne dafa fekk ñëpp koo xam ni mën nga rek ak loo mënti mën nga ni xaaral ma ñëw indi loo xam ne dama koy jàppale askan bi moom mile di maire bi daanaka ci bile ndaje jot na itam ndimbal ci ay produits hygiéniques yi bàyyeeku ci ñii di notable yu Guet Ndar waaye itam benn enveloppe financière bu toll ci million ak i gan wàll ci ñi nga xam ne ni ñooy ay conseillers ak conseillers municipaux ki doon jokkoo ak fii ci Saint-Louis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 trois euh, ñetti téeméer ak ñaar ci ay milliards yoo xam ne dañ ci war a fay ay ay ay yu doon jox état bi ak téeméeri milliards yoo xam ni dañ ko war a def rek tamit ci rek lu jub lu ñu gaaw rek daal di euh, génne suqale kooku yenn biir bi ñaar téeméeri milliards yoo xam ne dañ ko finance jëmale ko ci entreprise yi nga xam ne itam dañu am ay jafe-jafe crédit TVA bi tamit loolu lépp daal ak yeneen i jëf yoo xam ne njiit réew mi jël na ko Macky Sall ngir jàppale secteur économique ci wàllu koom bi nga xam ne daanaka coronavirus bi daf cee dal lool Covid 19 bi engagement yi nga xam ne daal ñu bare tam ñu yëngu ci wàllu secteur boobu nga xam ne moo jëm ci wàllu tamit waaye ndax ñoom mbir mi dafa dal ci seen kaw ndax manque ak gani bi lu mu gàtt gàtt dana jege lu ñu toll ak ñaar téeméer ak fanweer ci ay milliards xalaat ko gisee ci wàllu koom ak tamit rek mbir yi eh, kii nga xam ne itam moo di Boubacar Sabali eh, daal eh, moom am ay waxtaan yu ñu ci jokkoo ak Babacar Samb bu ñu déglu. Boubacar Sabali maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow yaay njiital syndicat bu boot li nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum hôtellerie ak itam tourisme bu région touristique bu Thiès Diourbel. waaw voilà ngir euh, jàppale leen si seeni secteur nga xamante ni jamono ji euh, mu ngi wéy di euh, jonkonte ay jafe-jafe li ko waral bokk na ci feebaru coronavirus bi njiitu réew mi Macky Sall daal di annoncé ay mesures lu ci mel ni cent milliards yi nga xamante ni fas yéene na ko teg ci secteur économie bi rawatina ci hôtellerie bi dina tax tamit teg ay mécanisme de financement lu toll ci deux cent milliards jëm si yenn ci entreprise yi nga xamante feebar bi da leen daal di euh, gàllankoor lu bare bari yéen naka ngeen gisee li nga xamante ni moom mooy euh, mesure yu njiitu réew mi daal di jël est-ce que dina tax ba li nga xamante ni moom mooy seeni jafe-jafe mu mën kaa saafara ci nu mu gën a gaawee. Euh, damay jiital d'abord gërëm chef de l'État di rafetlu disposition yi mu jël démb yi mu annoncé. du bii mooy première fois bi cest à que njël ba bi muy daal di tëj frontières yi la annoncé woon ne euh, dina jàppale euh, ay yeneen banqaas réew bi ci ay industrie bi tourisme bi di bokk ci lii ci mhm. discours am mu gan ko leeral parce que dañ ko wan ne euh, mesures yooyu dina am impact économique impact social impact social moo gën a sensible mu ne ñu nag bépp entreprise boo xam ne nangu na bañ a licencier def chômage technique di fay soixante dix pour cent dinañ leen jàppale. naka lañ koy jàppalee nag loolu il faut ñu waxtaanee ko suñu biir syndicat bi syndicat patronal bi. Mhm. pour bañ a beru. parce que boo nekkee yow rek na lii ngay defal di nga ko defal doo ko def naka nga ko koy defee. Mhm. boo nekkee ci mbootaay nag di nga jublu ci mbootaay boobu ngeen seet naka nga koy defee pour ku nekk jàpp ne état bi daf ñuy jàppale dina soulager euh, suñu employer yi. parce que ñu bari mënuñu ko woon fay 70 pour cent mm-hmm. euh, donc loolu dañ koy rafetlu lu bees la lépp biig la woon bu eh, bu bu bu fii fii ba lundi ñu xam naa dinaa waxtaan ak waa euh, syndicat patronal pour ñu seet boobu ban taxawaay ndax dañuy def benn bataaxal yónnee ko membre yëpp. Mm-hmm. am wala leneen wala ci au niveau local lañ koy defee. Mm-hmm. loolu xamu ko xamu ko ko. donc dañuy xaar bi booba euh, ñuy weccoo xalaat xam seet exactement naka lañ koy defee parce que du 70 pour cent rek la ñuy la ñuy seet ndaxte même boo tëjee hôtel dina am di nga di même boo tëjee hôtel di nga entretenir jardin yi même boo tëjee hôtel am na électricité ak ndox loolu yëpp charge la dañ koy xaymal seet plus 70 pour cent yi nekk nga ko mën a gérer parce que crise bi xam ñu kañ lay kañ lay jeex. benn weer ñaari weer ñetti weer ñun ñu ko appal euh, juróom benn weer dama bokk ci mbootaay ci mbootaay boobu rek jublu dégg ko ba pare waxtaan ak moom seet yan disposition la ñu war a jël loolu loolu rek lay mën a doon alterner bu bu parce que ñun it euh, def nañu déjà suñu bi impact maanaam ci lu ñuy perte ci recette charge yu ñuy supporter ci tëj bi ak soixante-dix pour cent lu ñu wax parce nee nañu nañu jàppale soixante dix pour cent mais soixante pour cent yi kañ lay ñëw est-ce que léegi léegi la wala ci kanam la walla mois prochain la xamaguñu ko loolu il faut d'abord mu gën a leer ñu xam exactement balaa ñu jublu suñu personnel la ah léegi am nga soixante dix pour cent wala quatre pour cent il faut ñu xam dans quel délai dañ ko mën a am. en jamono ji ñu tëjee frontière aérienne yi ak seeni hôtel ba suñ joon yàlla tey ci li ngeen perte ci wàllum koppar xayma gi naka la toll. Euh, ci départ bi euh, am nañu estimation évaluation simulation la ñu def euh, ci li ñuy def moom dépassé na deux cent milliards. ensemble Sénégal hôtellerie ci la agence de voyage ci la lépp ci la. bu ci fi ma Sabali maa ngi lay sant di la gërëm. ma di fàttali yaay njiital syndicat bi ba ñuy yëngu ci wàllum secteur hôtellerie ak itam tourisme bu région touristique bu Thiès Diourbel merci beaucoup. li yi tamit ci rek dogal yooyu nga xam ne am na solo lool ngir daal mën a soqaliyaat yenn béréb yu baree bari euh, te fii nu toll nii itam. am na ñooñu seen xam-xam wàcc na ci wàllu koom ñu duppee leen ay économistes am na ci kooku moom lañ duppee Abou rafet la loolu moom moo jiite département bu économie ci wàllu université Cheikh Anta Diop nee daal war nañoo baral itam mbir yi lu mu gën a gàtt balaa rek mu am ay retard ay tardé tardé ci wàllu salaire yeeg yooyu lay. Eh, économiste bi di Abou Kane jokkoo ak Babacar Samb. professeur Abou maa ngi leen nuyu. waaw ah, yow yaa jiite euh, département économie bu université Cheikh Anta Diop euh, de Dakar euh, jamono ji ngir mën a jàppale lii di secteur privé bi nga xamante ni ñoom jamono ji dañu am ay gàllankoor yu bëree bëri sax ci te li ko waral moo di feebaru Covid 19 bi lee njiitu réew mi ci discours am daal di annoncé lu tollox ñetti téeméeri milliards yu tegal ñaax ngir nag mën a fay lii di fournisseur u état bu Sénégal cent milliards itam mu daal di koy annoncé ni daal daanaka. que dinañ ko daal di jàppale secteur yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a euh, sonn ci euh, feebar bi la rawatina transport hôtellerie ak itam agriculture yow mesures yi nga xamante ni njiitu réew mi daal di ne koy jël yow naka nga ko jàngatee est-ce que doon na mesures yi nga xamante ni daanaka dina tax ba yooyu le secteur mën na suqalikuwaat. maa ngi maa ngi lu mesures yu président de la République jël. te jàpp naa ne ay mesures yu baax la yoo xam ne euh, dina tax. suñu secteur privé bi euh, bañ a sonn trop euh, si si si crise bi waaye tamit il faut que ñu gaaw ci mesure yooyu maanaam ma trois cent deux milliards yi ñuy wax ne dañ koy fay il faut que mu mu gaaw ndaxte euh, comme dañoo ne condition bi mooy ñu maintenir salaire yi secteur privé mun na wax ne moom si loolu lay xaar ba ñu ràmb ba ba état bi fay lu mu leen loon maanaam trois cent deux milliards pour que ñoom ñu mun a engagé wu di continuer di fay ay salaire ndax xam nga ne travailleurs yi nii nii déjà crise bi am na un mois ci Sénégal boo considéré jour bu ñu commencé ab premier cas bi te crise bi commencé woon na avant loolu ndax adduna bi yëpp xam nga ne activité yi dafa baissé woon euh, donc euh, mesures yi baax na wante il faut que ñu ñu ñu baral ko ñu ñu gaaw a génne xaalis bi ak cent milliards appui direct bu ñuy wax bi pour transport hôtellerie ak agriculture yooyu yëpp euh, bu fekkee ne gaaw na rek euh, yaakaar naa ne mun nañu yaakaar ne euh, mbir mi du yegg fenn fii ci par rapport ak impact yu bon yi mu mën a am ci suñu économie te boo xoolee tamit si lu président wax am na ay remise ak ay suspension d'impôt mmh. yi ñu accordé entreprise yi waaye ñooñu il faut que ñoom tamit soit ñu fay salaire yi maanaam bañ dàq nit ñi wala boog ñu engagé wu fay soixante dix pour cent au moins wala plus de soixante dix pour cent wu salaire yi mais xam nga loolu tamit dafay laaj fekk entreprise yi am nañ xaalis bu ñu fayee loolu maanaam mun nañ jël engagement bi nii rek ne ñoom du ñu dàq nit ñi waaye pour que nit ñi bañ a sonn il faut que entreprise jot ci xaalis boobu remise yooyu ñu ñu def ko pour que euh, ñoom tamit ñu ñu mun see génn donc am na ay ay questions yu bëri yoo xam ne euh, président soulevé na ko yu am solo la. Euh, si mbir même prolongation délai général de paiement TVA bi ak différé de paiement impôt et taxe yooyu yëpp yu yu am solo la même deux cent milliards tamit yi mu wax ne dañ koy consacrer au financement des entreprises mais yooyu yëpp daal mesures yi dafa war a gaaw pour que mu bañ a am une crise par rapport ak salarié yu nekk ci privé bi te di xaar seeni payoor pour ñu mën a dundal seen njaboot te beneen mbir mi tamit mooy Euh, il faut que ñu ñaan yàlla tamit euh, euh, crise bi bañ a yàgg trop ndaxte mesures yi mu jël nii yëpp yu baax la te dina régler problème bi à condition que crise bi ñu yaakaar ne fii mois de mai wala su soree ba sori mois de juin dina jeex ba ñu fàtte ko ba ñu continuer si leneen wante ñaanuñu ko yàlla mais bu crise bi nii continuer au delà du mois de juin dina amaat yeneen problème yoo xam ne bi day day ñëwaat mu mu waat di jëlaat yeneen mesure te su boobaa nag euh, foofu la problème bi nekk ndax est-ce que état bi dina am moyen defaat lu ëpp lu mu def nii déjà donc euh, te comme ñun dañoo nekk ci économie boo xam ne dafa faible suñu secteur privé bi euh, joxeegul carrément tout son potentiel par rapport ak croissance bi ñu doon am te tamit dañoo dépendre lu bëri si luy jógee ci yeneen dëkk yoo xam ne ñoom tamit crise bi daf leen a laal te ñoom sax la crise bi gën a laal mooy économie yu mag a mag yi lu mel ni ay Chine ay États-Unis ay Union européenne pays Union européenne donc xam nga loolu noonu day day gën a jafe ndaxte euh, bu doon crise boo xam ne si ñun la yem euh, boo defee mesure mën nga yaakaar ne dina régler lépp mais comme dafa nekk si ñun ba pare laalaala yeneen économie àdduna bi yëpp ñoo xam ne ñooñu ëpp doole euh, mun naa wax ne dina wàññi bu baax lu waroon a métti ci ñun wante euh, dina am tamit euh, loo xam ne duñ ko ci maîtriser ndaxte suñ économie dafa dépendre ci ay économie yu bëri yoo xam ne ñooñu ëpp doole te ñoom ci seen bopp dañoo nekk en crise voilà professeur Abou Kane maa ngi lay sant di la gërëm. waaw jërëjëf. Euh, di fàttali ni yow yaay jiite département économie bu université Cheikh Anta de Dakar merci beaucoup. Sud FM chez vous. à tout instant. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposé gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre vingt ba diamètre cent millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip arobase csip point sn visite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 ñoo leen di may seen revue de presse Ndeye Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm mbas mi di coronavirus te mu lëmbee àddina bi su fekkente ne nag kenn jëlu ci ay matuwaay de mën na na saxal nag bépp koom-koom ci bépp réew fii ci biir Sénégal autoliki ay bii di ci quotidien mi ngi ñee xamal ne njiitu réew mi daal dinay jël ay matuwaay ngir fexee ba jàppale nag askanu réewum Sénégal ci noonu nag la daal di fësalee koppar gu weesu nag fukki milliards ak juróom yoo xam ne dañu koy jël ngir fay nag facture courant yi te loolu moom njaboot yu bëri ñoom ñoo ci bokk ci wàllu ndox bi tamit njiitu réew mi daal di nay jël koppar gu toll ci ñetti milliards ngir fay nag facture ndox yi ñu gis tamit ne njiitu réew mi am na koppar goo xam ne tamit daf ko jagleel bépp kërub liggéeykaay goo xam ne nag nguurub Sénégal daf la ameloon bor mu daal di gis tamit ne am na yenn ci ay matuwaay ak i jumtukaay yoo xam ne dinañu ko jël jëmale ko nag ci yeneen kërub liggéeykaay yi su fekkente ne nag téye nañu seeni liggéeykat ba pare nangu nag di leen fay ci décision yooyu nga xam ne moom la njiitu réew mi daal di jël ñu ngi ñuy xamal ci biir xam ne nag ñoom ñoo bokk ci biir patronat bi ñoom daal dinañu koy rafetlu ci ni mu waree culikaay bi di Sud Quotidien di ñu xamal ne waa CNP ak club des investisseurs sénégalais ak tamit ñii di waa CNES di confédération nationale des employeurs du Sénégal ñoom ñëpp nag daal dinañuy gis ne décision yooyu nga xam ne moom la njiitu réew mi daal di jël nekk na loo xam ne nag dina baax ci kërub liggéeykaay yi nga xam ne daal ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi suñu naataangoo yu culikaay bi di Dakar Times sax daal di gis ne ci plan boobu nga xam ne nag njiitu réew mi moom la daal di jël ngir fexe nag ba jafe-jafe yi nga xam ne feebar bi di Covid 19 dina ko indil askanu réewum Sénégal plan boobu nag bokk na ci juróomi plan yi gën a mucc ayib fii ci biir afriga aujourd'hui kay bii di Dakar Times du ñu xamal nekkoon njiitu réew mi moom plan nga mu jël moom moo jiitu euh, bu Paul Kagame bu Rwanda Mohamed Ould El Ghazouani bu Mauritanie Ali Bongo bu Gabon ak tamit Roch Marc Christian Kaboré euh, bu Burkina Faso wante nag njiitu réew mi keroo ko ba muy daal di fësal lépp lu jublu nag ci wàllu euh, matuwaay yooyu waxul jëmale ko ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci wàllu jàngale bi te li ni mel nag neexul dara waaye professeur Mamadou Diouf nekk ab jàngalekat ca université bu Columbia nekk ca États-Unis moom daal di ne xam leen ne njiitu réew mi dafa mel nii dafa fàtte ñi yëngatu ci wàllu euh, jàngale bi ndaxte ñoom de ci ay jafe tamit la nekk te it fu mu nekk ni sax l'école bi ñett ci ay bés tëjoon nañu ko daal di koy yokkaat yi benn weer moom moomu nag di professeur Mamadou Diouf te mu nekkoon ganub émission bii di objection fii fii ci biir rajo Sud FM autolikaay bii di Sud Quotidien tamit daal dinay taataan ay kàddoom ndaxte ñëw na nag ci li nga xam ne daal moom mooy vaccin ab ñàq boo xam ne nag dañoo ne yee yaay dañu ko bëgg ci biir Afrique ngir daal di doomu réewum Afrique yi fexe ba ñu am feebar bii di coronavirus ñu war cee mën a wér professeur Mamadou Diouf li ko ci gën a jaaxal moom moo ne dafa gis ne ay kàngaam yu nekk fii ci biir Afrique ñoom ñoo nangu sax ñuy indi vaccin boobu di ko testé nag ci ay doomu réewum Afrique loolu sax moom moo tax ba muy xamal africain yi ne bu ñu ko nangu nangu tey bu ñu ko nangu ëllëg ci lu jublu sax ci wàllu ñàkk boobu ci biir culikaay ci biir Afrique sax mu nekk ni nag daal dina ñuy xamle ko nangu tey ko nangu ëllëg wante li wóor ba wóor moom mooy ne ci wàllu ñàkk boobu docteur Jean-Paul Mira te la santé la recherche médicale moom daal dinay xamle ne ñàkk boobu nag ci juróom-ñetti fan ci weeru biir Afrique ñi nga xam ne nag seen jiite dañoo doon nangu ñu daal ko fi euh, dugal ngir fexe ba ñàq askan wi wante fii ci biir Sénégal de na wóor ba wóor ne ñàq boobu du fi mës a amee ki nga xam ne sax moom mooy joriñ gu ñu dénk wàllu wér-gi-yaram bi di Abdoulaye Diouf Sarr ñu ñëw kon ci feebar bii di coronavirus fa mu toll fii ci même réew démb nag ci dimanche bi julikaay bi di laas mi ngi ñuy xamal ne daal dinañuy gis ne réewum Sénégal am na ci lu tolloog ñaar téeméer yu tegal ñaar fukk ak ñaari cas ñoo xam ne daal dañoo am feebar bii di coronavirus mu am ci ñoom nag dañoo wér ñaar ñi daal di ñàkk seen bakkan li ñu nemmeeku moom mooy tamit ne ci njeexteelu ay bés bi am na ñaari cas communautaire moom mooy ñii nga xam ne nag dañoo am feebar bi te xamuñu ñan ñoo leen ko wàll ñu wax ak julikaay bi di Vox ci mbir bu doy boo xam ne nag daal di ne xew fii ci biir Dakar te guddi sax la xewee fekk nag mu am couvre goo xam ne daal mi ngi dox fii ci même julikaay bi di Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne ab soirée nag moom moo amoon fa li nga xam ne de moom mooy ca Almadi te nag ñi bokkoon ci biir soirée boobu ñoo xam ne daal seeni seeni waajur ay kàngaam lañu ba pare nag am xaalis bu bëri autolikaay bi di Vox Populi ne ci soirée boobu nag la kii di Iba Thiam daal di génne àdduna autolikaay bii di l'exclusif di ñu xamal ne moom de ci boobu sax dafa mel ni ne dem daal ba ci benn instant yaramam neexul woon ña fa nekkoon au ku ñu daal di koy dem wallu ñoom ñëpp ne fees ne menteng autolikaay bii di Vox Populi du ñu xamal ne noonu sax la ab enquête daal di am ba ñu teg loxo kii di Dame Amar nekk doom ci dem si yàlla Ahmed Amar teg nañu tamit loxo ci doomu kii di Julde Ñaan ki nga xam ne nag moom mooy euh, Rugi Diaw nekk doom ci Baba jaw moom daal di nañu koy euh, déglu ndaxte moom moom moom appartement ba mbir ya euh, xewee moom nag ba ko dégloo ba pare waa gendarmerie dañu ko bàyyi mu dem jolikaay bii di critique du ñu xamal ne ki ñàkk ba kennam nag di Iba moom de mi ngi nekkoon directrice administrative et financière ci benn kërub liggéeykaay gu mag boo xam ne nag moom moo nekk fii ci biir dakaar moom ak ay xaritam dañoo daje woon ci ab soirée boo xam ne daal daal lu leen neex lañ fa doon def te it autolikaay di critique mi ngi ñuy xamal ne loolu yëpp nag la ko waral moom mooy yenn ci ay autorisation ak i laissez-passer yoo xam ne daal dañu koy jox ay xale yu ndaw ci période bii nga xam ne nag moom la suñu réew nekkee libération mu ngi yokk di xamal ne gendarmerie bu Ngor moom moo tàmbali woon enquête bi wante nag mujjee nañu ko foqati ci seeni loxo daal di koy dénk brigade de recherche te mu nekk ca Faidherbe ñu jeexalee ko nag ak wàllu làmb ga culikaay bii di suñu làmb di ñëwaat ci ay kàddu yoo xam ne Abdoulaye Makhtar Diop moom moo ko daal di fësal jëmale ko Euh, ci arbitre yii nga xam ne nag euh, kii di Sitor nduur moom dañu ko radier à ñeneen ñi nag ñu daal di jël ay daan teg ko ci seen ndodd moom moomu nag di Abdoulaye Makhtar Diop daal di xam xamle ne kii di Sitor nduur moom arrêté moom moo ko daal di tabb kon kay amul benn commission bu bàyyeekoo nag ca CNG euh, bu ko mën a rawatina nag di ko radier à vie mu daal di gis tamit ne du parce que nag ñii nga xam ne ñoom ñooy arbitre yi dañu doon amal ab mouvement du yëngu-yëngal loolu nag moom moo war a mun a tax ñu daal di leen dàq moom moomu kon di Abdoulaye Makhtar Diop daal di ne gis nga xam ne nag moom moo xew ci diggante CNG ak ñi nga xam ne dañoo ñooy arbitre yi teguwul fenn lii moo nekkoon ba déglukat yi di gën a fës ci biir autorité yi ñu leen di ñaanal njaxtu lu bës ak jàmm. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD mi ndax liggéey bu mucc ayib nga xam xam Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme bo xam ne dafa jëm ci diamètre vingt ba diamètre quatre cent millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy soxla rek ñu defal la ko ko ba noppi dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69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 Frères, HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP ak établissement Mbaye et ñoo leen doon may seen revue de presse. Maodo Faye. ngeen jëf bokk yi kon juróom-ñetti waxtu moo dem ba fekkoog li tolloog fanweeri minute ak juróom-benn foofu lañuy ñuy daal di taxawandi bàyyi nag léegi li ci des ak euh, xët wi ñu jagleel euh, suite nutrition.